salaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan euh, ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam di leen wax ne ñu ngi leen di dalal seen émission bu bees. suñu ñaari ay invité ku si mel ne monsieur Kane ak monsieur Abdoulaye Samb ñu jërëjëf monsieur Diaw ñoo ngi am contentement beneen yoon di nu suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ngi suivre émission bi nga xamante ne mooy jeunesse ak religion. Mm-hmm. jërëjëf. sàmm jërëjëf sëñ Souleymane Diaw kontaan nañ rafetlu sa invitation bi. Mm-hmm. di wax ni ñu ngi ci si plateau bi pour waxtaan lu am solo muy jeunesse ak euh, islam. Mm-hmm. kon di loolu ñu ngi lay bàyyi kàddu jërëjëf. waaw jërëjëf Samb ak Fane di leen wax ne sa jour yéen a seen émission bu bees bu ñuy wax islam et la religion waaw Fane man dama seetlu Sénégal jeunesse bi tey ni ñuy doxee ak islam mu ute lool loolu lan moo siy sa xalaat. jërëjëf monsieur Diaw tey am na loo xamante ne bu ñu ko seetloo si jeunesse su sénégalaise yi. Mm-hmm. ak ñoom ñu ne majeure partie bi ñoom ñëpp presque jullit leen mhm. kon tey am na loo xamante ne mun naa ne dañ ko war a xool fan la mhm. erreur bi kon dañuy dem ci base bi mhm. tey yow bu fekkente ni jeunesse nga nga am noo xamante ne war nga ko mën a taxawee sa société j'espère que war nga mën a pare sa bopp ba pare avant nga doon joxe beneen exemple kon tey loolu lañ manqué j'espère que war nga pare sa bopp foofu la ñuy taxaw ñëw si sàmm yow loolu la nga si lan la moo si sa xalaat waaw dëgg la boo xoolee jamono yi ñu toll nii il y a ce qu'on appelle en français crise des valeurs Madame, maanaam mooy lan si très bien crise des valeurs beaucoup ko Barbie. bi crise mooy c'est-à-dire euh, ci métti métti métti. Mhm. fi nga xam dafa valeur mooy maanaam jikko yi. Mhm. comme suñu valeur ak suñu culture La yi ndax yi Euh, jigé ñi ñu wara jigé jigéen mm-hmm. ndax xamatuñu da ba pare ko ci gis mu ngi defee ni moom dafa xam ta xamul mm-hmm. te nit bala nga xam il faut ñu xamal la mm-hmm. ko ci gis mu ngi mel dafa xam ta xamul te nit bala nga xam foog ñu xamal la wa lan nga ne jeune musulman bi ban apport la wara amal euh, société bi société bi mën dem si kanam ok jeune musulman bi warna am apport bu rëy ak société parce que tay dañuy société bi day yakar si jeunesse bi avenir la kon mom tay warna paré pare bu paré bopom nak légui loolu lay mën a apporter euh, li nga xamante nga yaakaar ne si pare boppam boobu ngay wax doguma la nga yaakaar ne suñu jiiti amuñu tuuti sàggante si loolu loolu dañ koy njëkkee si parent bi nga xamante ne moom mooy parent parent mm-hmm. waajuram yi mm-hmm. tey après waajur yi yaakaar naa tey tamit autorité yi nga xamante mooy autorité sénégalaise bi tamit war na am benn rôle bu am solo boo xamante ne mm-hmm. war na ko def si ndaw dëkkam tey noonu mu leen formé léegi tamit bés dina ñëw autorité yooyu buñ fi nekkul duñ seen xel dina dal parce que dinañ am ndaw yoo xamante ne ñoom ñooy

defuñu dañoo def li nga xam ni war na ci ñoom. Mm-hmm. ba pare ñoom itamit ñu jël seen yoonu bopp. ndax ñaari yoon ñoo am yoonu baax ak yoonu bopp mm-hmm. bon boo nee ba am 18 ans nag eh, ba xam ba xàmmee li nga xam nag ban yoon nga war a jël. Mm-hmm. kon nag bu fekkee da nga xëy ni da nga bëgg a jël sa yoonu bopp say waajur bàyyi la donc looloo tax. waaw jërëjëf si yooyu Samb loolu rek su ma leen déggee si li ngeen wax mu mel ni kon euh, jeunesse bi dañu perdre repère te am na benn mag bu baax bu doon wax ne jur doom mu dee du yore dal nee na doom. ay wajuram di dund te mënalu ko dara ne ni kooku mooy ki nga xamante ne moom moo yëre daal léegi yow fane yow lan nga xalaat ne jeunesse bi tey mën nañ ko def loo xamante ne mën nañu génne situation bi ñuy dund nii say say ci Sénégal ok loolu tamit dañ koy delloowaat bu njëkk parce que jeunesse bi dafa am foo xamante ne fa la jiitoo ba muy ñëw mun naa ne dara nekkul si boppam mm-hmm. kon tey ñu ko war a waajal ñooñu est pare nañ pour waajal genes bi. lu am solo li ko war waajal est-ce que pare nañ pour waajal. jeunesse boobu yow loolu nga xalaat. waa li mu wax nii mooy li ma ci mën a jàngal rek mooy li ko waajal mooy gën a poser dal pour xam ne maanaam dara xëyul sotti dara xëyul sotti boobu mooy di gën di déglu parce que pour nga def dara il faut maanaam nga xalaat ak sa xel ni lii laa bëgg a def. est-ce que xalaatu leen ne tey kon lor na ndaw yëpp tey. ku nekk xam ne dëkk bi kat man su ma toogee seetaan lu jëm si kanam kenn ku nekk jéem indi sa apport si développement dëkk bi est-ce dëgg la waaw parce que ku ci nekk ak maanaam da ngay tojee sa bopp boppu ganax mhm. toogal xalaat ni man mii kat su ma xaaree kële ni moom mooy def ku ci nekk day jékki-jékki bëgg nii man nii laa mel nii laa mel boobu mooy yow yaa war a toog mhm. ni man du ma xaar kenn. waaw loolu lan moo koy sooke. nii laa mel bi ku mm. nekk di wane sa bopp loolu lan moo ko sooke pour yow. waaw li ko sooke mooy. cest à diir du lenn lu dul maanaam euh, rëy rëylu rëy-rëylu ku ci nekk dangay ngay bëgg a wan nii la mel. waaw xam nga rëy-rëylu boo ko gisee dina am fu mu fu mu cosaanoo. fu mu cosaanoo te tey boo koy natt si dëkk bi dafa mel ni jeunes yëpp noonu lañ mel. jeunes yëpp noonu lañ mel. léegi loolu man loolu laa bëggoon xam fu mu jógee ak naka lañ mën a def pour éviter loolu. voilà maanaam fi muy jógee mooy des fois laxdar yi sax dañu koy faral di jàngal. est-ce que mhm. laxdar yi dafa tënk point yëpp. Mhm. mu di rëy-rëylu baaxul. Mhm. ndax booy rëy-rëylu toujours li am na loo xamante ni doo bëgg a def. te loolu baaxul dans la vie lépp loo xamante ni dalay jariñ di jariñ sam réew bul ci tànkamlu dem ca ba mu jeex. waaw jërëjëf si loolu leer mu mel ni comme li tubaab di wax ne l'orgueil mal placé la lañ koy tuddee si tubaab ah. maanaam rëy rëylu boo xamante ne amul fan foo ko teg ah, yow euh, fan loolu moo si saxla waaw tey gis nga euh, rëy handicap boo xamante ne tey bu nekkee si nit rek hmm. mun naa ne da koy échappé loo si lu bëri léegi loolu nag il faut jeunesse bi am na fu muy toll mu xamal ko boppam mu jéem ko dindi si boppam jéem ko tamit dindi si nga yaakaar ne amul amul manquement si côté éducation parce que man damay posé chaque jour question xëy na yéen ñi nga xamante seen xam-xam màcc na si wàll woowu ngeen dimbali ma si parce que dafa am lu tuddee ministère de la jeunesse ñu ne moo ministère de l' éducation du moins ñu ne moo yor wàllum jàngale bi te man éducation su ma ko déggee yaakaar naa ne mooy yar ngeen yaakaar ne foofu est Mm-hmm. si wàllum yar yooyu. waaw yar bi am na fay. parce que dañ naan éducation de base. Mm-hmm. éducation de base mooy lan ndaw ca ba muy teel. Mm-hmm. yar ca ba muy teel. lu solo xale bi boo koy yar ci na nga ko yar ca kër ga. sa ñaari éducation ñoo am. éducation ba nga xam ni ca kër ga la. ak éducation bi nga xam ni ca école ba la. ndax ñaari yar yi moom la yàlla di wax toujours nii. comme démb ñëw julleendoo ensemble ñun ñi toog fii. Mhm. nga baal ma ci kàddu gi. Mhm. parce que imam bi dafa wax lu am solo. Mhm. muy yar. yar ci doomu aadama yàlla ëllëg dina la laaj nan nga yore woon sa njaboot. kon yor boobu toujours xale bi bu amul éducation ba nga xam ne moo war ci moom. bu génnee day yàqu des fois ñu ni euh, kii dafa yàqu yàqu bi fan la jëkkër kër ga. mais doguma la xam nga wax nga waxu yar ba wax waxu école ba lañ ko war a tàmmalee ak sa kër gi uh-huh. mu mel ni tey école ba xam nga bu njëkkoon da ngay gis kuy jàngale mais da koy def ak bëgg mais mel ni léegi ñii jàngale dañuy jàngale mm-hmm. pour am xaalis est-ce que yaakaaroon na fan yow loolu ne moom moo li xew na si mm-hmm. parce que joué na si rôle bu am am solo mm-hmm. parce que bu fekkente ne yow dañ la defar ba nga baax léegi nga war a defar ay ndaw mais yow gisoo ne yow ñi nga war a defar da leen war a defar te yàlla tax lu la ci fekk muy sa wërsëg mais yow jiitaloo loolu jiital intérêt affaire xaalis yu demee noonu. Mm-hmm. a suivre jeunesse bi xale bi. Mm-hmm. war a def si ko def parce que am na sa bët foo xamante ne fa la tegu muy si côté xaalis bi. waaw ñuy seetaan ñu leen fàttali ne yéen a ngi seen émission bu bees bu ñuy wax euh, islam et la religion mm-hmm. islam et la jeunesse. Euh, yow Samb yow lan nga ñu wax mën a wax comme lu nga xamante ne tey dëkk bi. man nañ ko mën nañ ko defar ba ñu delloowaat si base yi nga xamante ne moom la nekkoon base yi ñu nekkoon mooy te boo xoolee tey Sénégal léegi jeunesse bi amatuñu teggin loolu lan mooy sa xalaat voilà lu am solo nga wax noonu mu di teggin mhm. yar teggin mais teggin bi moo ci ëpp solo ni la ñu mën a def ba defar ko mooy toujours di respecter euh, ki nga xam ni moom moo la mag ak ki nga xam ne tamit. maanaam rakka rakka topp mag. rakka topp mag lu am solo la. Mhm. parce que des fois dañ naan ci tubaab le respect est réciproque. Mhm. mooy maanaam si si si wolof. pour nit ñi seetaan. mooy boo ma joxee respect boo ma joxee cër. ma mhm. delloo la ko ba mu mat. alhamdulilah mais nit ki boo ko joxul cër. moo xam sa papa sax dafa war a jox doom cër. bu ko defee mu mën ko ko delloo. mais tant que chaque jour da gis kër yoo xamante ni teggin dafa am solo lool. kër go xamanteni papa ji day saga rek. Mhm. papa ji di saga rek. Mhm. dom ji bu yagge day saga waaw moo bu yagul sax ñu ngi gis si si Sénégal tay am benn way ju nga xamanteni dañ duñ tour lu ngi nek ci internet yi di saga bien sûr gis nga. kon lool rek day delluwaat ci teggine yow fane man suma lay laaj lay laaj walum kersa. Mhm. xam nga kersa tay boo koy xool jeunesse bi ñu kersa. lool lool ma ci xalaat. waaw damay fàttaliku benn kilifa bu ma dégg mu ne dégg na si waxu yonent lu xadis mi ne minal iman kon kersa mhm. bokk na si gëm yàlla te yaakaar ne nee nañ ay jullit lañ mhm. kon kersa dafa war a doon loo xamante ne dañ ko war a boole ci ñun mhm. parce que dina yokk lenn si ñun muy ñu gëm yàlla te yaakaar naa tamit dina defar société bi mais malheureusement gisuñu ko si ñi nga xamante ne mooy société bi te loolu bu amul respect du mun a dugg foofu mais bu ñu la déggee mais nee na kersa dafa bokk si gëm yàlla te tey gisuñu ko ci sunu ci sunu jeunesse mais yow tey kersa bi sax daf ci feeñ bien sûr dëgg lu am solo nga wax. Mm-hmm. parce que kersa dafa baax ci doomu aadama. Mm-hmm. ndax euh, loolu toujours rek tubaab di wax la pideur mm-hmm. kersa. pideur maanaam. kersa mooy kersa mooy kersa pudeur mooy kersa. pour ñi nga xam ne tamit comprendre ñu baat bi. ndax kersa dafa baax ci doomu aadama. nit ki kersa dafa tënk lépp. ndax euh, des fois nga romb nit. romb ko mu xool la. nga ne ko yow amoo kersa. amul kersa kersa bi mooy lan booy xool da ngay xam di xool ak di baisser sa regard beneen kersa bi mooy kersa bi nga xam ni ci intérieurement ci biir la nekk mooy nit ki euh, du lépp nga koy xamal rek waxal ko ko des fois ñi dafa ñàkk teggin dafa ñàkk kersa ndax lan gis nga bis bu la xamalee dara maanaam jour boobu la la koy wax ba maanaam kii da nga naan lan la ma dencaloon. waaye ñu leen fàttali ne ñu ngi seen émission islam et la jeunesse yow dama su ma delloo si kersa boobu nii boo bu ñu dajalee lañ fi lañ fi wax yëpp si tënk maanaam dafa mel ni kon jeunesse bi dañu waroon jàng seen diine te jànguñu ko yaakaaroo ne loolu mooy problème bokku na si. Mhm. parce que tey amul éducation bu gën bi nga xamante ne moom la fi diine teg. Mhm. parce que Sénégal boo xoolee mun naa ne dañoo jël beneen. Euh, pays boo xamante ne. ay luwa wax mu ñëw imposé dañ jéggaani dañ jéggaani yëpp jàmm te olof dafay wax ne ku bàyyi sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mm-hmm. malheureusement loolu lañ def. Mm-hmm. kon tey pour ñu delluwaat ñun ñu am valeur yi nga xamante ne moom lañ war a am. Mm-hmm. kon il faut que suñu maam yi lu ñu fi bàyyi te mu doon loo xamante ne lu ànd ak islam la. ñu indiwaat ko impose ko jeunesse bi. boo ko defee ñi mun a am société boo xamante day doon société saine. ñu leen di fàttali ne rek ñu ngi may fàttali ne ñeenti ñeenti minutes ñoo mooy sa waaw ci li wax rek toujours lay basé wu parce que islam la ñuy wax ak euh, jeunesse ah, la jeunesse ak religion mm-hmm. Mm-hmm. donc jeunesse bi nañ gën a mën a toppaat seen diine mm-hmm. te xam ni yàlla moo ñu sàkk te mu ngi ñuy gis lépp loo def ci kaw suuf mu ngi gis parce que dañ naan borom bët bu rëy bi borom bët bu rëy bi mooy yàlla kon mënoo def li ngay def ba pare takku nee nañ kuy naan di làqatu boo mandee feeñ jërëjëf sàmm si yooyu la leeral ñu leen di fàttali ne ñu ngi doon waxtaan tey si ndaw bi naka ndaw bi nga xamante nee na judeet la naka la war a dundee si biir société bi waaye léegi loolu su ma leen doon laaj tey ban solution lañ mën a def pour génn si loolu loolu loolu ma si wax fa ne mu doon question bu am solo parce que tey bu ma nekkoon ne dama naan solution message bi adressé ko autorité yi mhm. adressé ko ñi nga xam ne ñooy parents yi mhm. mais autorité yi nañ xoolaat surtout ministre de de l' éducation mhm. système bi nga xamante ne moom la teg yal na fekk mu xam la mooy éducation moom ministre bi si boppam <laughs> loolu dëgg la léegi loolu population bi est ce que duñ dem imposer ko parce que ministre bi ñun ñoo ko fi teg yaakaaroon ne ñun nu ñuy falee est ce que noonu la waaw loolu tamit beneen problème la yaa ma neex ak moom laa xam ak moo siiw mais xooluñu qualité bi xooluñu ministre bi fan la defee éducation xamuñu fan la jaar xamuñu nag moom lan mooy compétence am kon est-ce na pour yor loolu noonu ñu koy dénk Sam loolu lan mooy sama xalaat comme ni mu waxee rek bi maanaam solution laay laaj fi ma nekk nii li nga xamante ne moom la ñuy dund waaw dëgg la parce que bu ñu waxee rek ci bopp bi lañ jëm muy ministère de l'éducation mhm. ministère de moo yor lépp loo xamante ni wàllu yar la mhm. ci baat bi te yar boobu noonu bu ñu basé wu moom kese ci ministère de l' éducation mhm. parce que des fois dañ naan état mhm. état ñun ñëpp la mhm. bu ñu xool ne moom rek mooy doxal mais nañ koy dimbali di ko wax am koo xam ne da koy jege ni ko ah diw sama sa délégué la nii laay wax pour ñu génn ci man de bu doon man a nii ngay def pour génn ci lu am solo la waaw jërëjëf bu mel ni waxtu bi moo ñu xot ñu ma koy fàttali du def lu dul bàyyi fane mu tàggatoo jërëjëf mhm. monsieur Diaw am contentement bu baax a baax di nuyuwaat tamit ñi nga xamante ne ñuy suivre ci internet yi di rafetlu émission bu bees bi di ñaan yàlla mu continuer incha allah Samb waaw jërëjëf sëñ Diaw di tamit di gërëm sama naataangoo sëñ Fane. Mhm. kon kontaan naa ci émission bi parce que am na solo lool lool yii dafay baax pour ñu ci waxtaan. Mhm. ndax mooy. dëgg-dëgg bokk yi ci daan kon ñoo ko déggandoo mu ngi leen jox dig daje beneen yoon suñu beneen